bi campagne yi tàmbalee ba léegi ADE ànd defar ëllëg bu Abdoulahat Faye responsable politique chargé de mission à la présidence ñoom desuñu si ginnaaw si Touba ndaxte ñi ngi dem du seeti groupement de famille doon jàppale première étape bi di nag ndaamaatu kat fii si tableau Bara Cissé dem seet si fi ay groupement yu bari. tey seen seen activité yëpp maanaam lépp loo xamante ni ñoo ngi xëy di ko dox suba ba ngoon ngir seen njaboot la ngir nuñ ko jëmalee kanam waaye aussi nuñ seen dund ñoŋee ba gën a jëm kanam ci kaw loolu lañ teg mouvement bi Cheikh Abdou Lahad Faye jiite ko nekk koo xamante ne bii aussi ci dëkk bi la dëkk amul dara lum jéggaani lépp lu mu am wala mu xam fii la ko xamee ba pare bokk ci njabootu Cheikh Ibra Fall. ginnaaw loolu am na ay doléance yu nu teg doléance yooyu nag weesuwul formation jàppale ndaw yi également. bëgg nañu nga may ñu ay formation may ñu ay financement loolu daal boo ñu ko defalee dinañ la sant ndax man nag wax dëgg yàlla nekkoon naa beneen euh, kii waaye gisuma ci woon sama mel na ni nag sax lu nu mel amoon na fi si lu yàgg di ndaw si di koy biral waaye moom ci loolu nag niveau bi ñu toll ci la ñu fekk nag yëkkatiñu ba namuñu dara nag man mii waa koñ bii ñëpp a ma xam soxna Faat Ja Samb mii xam na ma dañ daan tase di dem ca marché bi di fa tase ba tey nag maa ngay jaay la ma doon jaay ne ca marché ba waaye xam na ni raar la ma fay gis ndax amatuma jot te yàlla ak jëmmam ji la. ndax formation bi ñu defal nañuy saabu defal na ñuy cuub defal na ñuy transformation céréale man mi def naa frise lu jum Abdou fay jàpp na ni l'essentiel mooy voté liste bu mu jàpp ni moo baax te nag liste bi kilifa yi teg loxo si kàddoom gis ni kat également yooyee doléance si kaw dina si gën a jàpp fexe ba indi si solution. nañ ci rafet nan woteel président Macky Sall mii ngir sagal Serigne Touba ngir sagal Serigne taxa ndax kii kat listam bii na ngeen xam ne na ngeen xam ne mooy liste Serigne bi. ndax na bu dee li tax ma mën koo wax mooy dama wéeruwaat ci ay kàddoom mooy maa ngi fa ma nekkoon ka ma ko dénkoon laa ko dénkaat mbir mii ni mu leen ñoree ni ngeen xam ne noonu la ma ñoree dénkuñu tamit ne dee leen dox jàmm ñoo ngi waxtaan dinañ xam ndax daan fu nu dem daanu bind man na duma ma lu ma man dinaa ko def boo ma waxee lu ma man ma def lu ma mënul tamit bul sonn seen carte yi duma ko bëgg a bëgg bëgg bëgg bëgg ba ne la dina yàllaa ngi leen nuyu gisuma yàlla du ma ko def parce que damaa bëgg élection yi day jàll. élection yi day jàll ngeen wotel Macky Sall ngeen ñàkk woteel Macky Sall man maa sasoo man maa saso man maa sasoo fi ma nekk may jéem a dimbali jigéen ñi Touba ak ndayu Touba. di fàttali ànd defar ëllëg dafa wër biir Touba ak département de Mbacké jàppale jigéen ñi ak jeunesse bi moo ko tax a jóg waaye tamit di politique ci ginnaaw Benno Bokk Yaakaar jàppale président Macky Sall ngir mu am ndam